ausu billahi min aseytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe ñu ngi leen di jaare bu baax a baax di jiital jaare bi nuyoo bi Serigne Mountakha di ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko ak Serigne Cheikh Jëmb faal su ngeen gisee jotaay bi nag xam na am na lu ñuy waajal muy journée xasida bi nga xam ne ñu ngi koy waajal mu tombeek le 9 juillet yal nañ ci yàlla yóbbu jàmm barke borom Touba su ko defee maam danañ kàddu gi rek Serigne maam Thierno Amar su ko defee moom dina wax programme bi nan lay demee. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk julli ñu ngi leen nuyu baax te di leen ziar yéen ñëpp tey ñaanal Serigne Mountakha basir mu yàgg fi loolu tànn ak wér naka noonu di ko ñaanal seen Cheikh Jëmb Fall ak mbooleem njabootu Serigne Touba bi yëpp di leen baax bu ngeen gisee jataay bi rek comme ni ko sañ Mour seen waxee ñuy waajal lu rëy muy xasida yi nga xam ne amul lu dul moom mm-hmm. te sëriñ bi tamit amul lu dul ku nekk xam ne ko kon nag ñi ngi leen ci woo daa ñëw na ba pare defoon nañ ci ay soññe yu bari waaye bii moom mooy soññe bi nga xam ne mu képp ku ko yëg rek na nga xam ne mooy sa soññe surna xas bi nag ren fi ñu koy defee xaw naa sori tuuti waaye direction bi incha allah danañ ko dugal sëñ Cheikh dana leen ko wax ba ñëpp gën koo xam te ku ne xam ne ne journée xasida bi nag day ànd ak dox ab dox te loolu lépp dañ koy dañuy sàkku maanaam teewaayu nit ñi te teewaay bi tamit muy ñu teel a ñëw ndax ba journée xasida ku ne xam ne ne buñ ko xëyee commencé 9 bu buñ demee bu yaakaar naa bu buñ jullee timis wala ba luñ jaa egg day daal di jeex kon nag waxuñu kenn nga toog ba naa ba ba midi wala 2h wala 3h ngay ñëw ndax fas yéene nañ koo teel a commencé mu teel a jeex fas yéene faa jàng alxuraan ak xasida saafonte fa bernde fa ñi ngi woo bépp taalib bu nekk ci dëkk bi nag ku ne ci dëkk bi tamit xam nga lii la war ci journée xasida ba ndax yaakaar naa lu tourné xasida yi buñ koy màggal ku nekk sa ñaq war na caa dem bala mu ñëw ndax bu ñu liggéey sëñ Tuubaa kenn bëggul ko ci raw kon te yaakaar naa sa addiya war na caa teew kenn ku nekk nag dégg nga liñ fa sase ci taalib bu nekk yaakaar naa muy 1000 pesos kon nag ñi ngi ci soññ bépp mbokk taal bi képp ko ko joxeegul boo ñëw tamit nga ëndaale ko te ñi ngi sàkku tamit képp koy ñëw nga sol sa yére yi nga gën a fonk xeeñ lu neex ñëw fas yéene fekkee ci xas day nga mën a nga ñëw toog durus boo ko mënu tamit nga yor sa kurus ñi nga xam ne ñoo wàllu kuréel yooyu ñoom mooy sëñ xaadim ak ba cheikh ak sëñ mot seen ak ak mbooleem sëñ jiili sàmm ñi nga xam ne moom moo jiite boobu ñoom it xam nañ nii ñuy doxalee kuréel yi ak kuréel bu nekk programme bi tamit xëy na ñoom danañ ko fesal mm. heure ba nga war a jàng ak temps ba nga war a jàng ñu respecté heure yi rek te jéem a gën a góor góorgóorlu ci xas day ndax amuñu lu moom ñi nga xam ne ñoo bokk ci wàllu xidma bi muy waa organisation bi tamit ñi ngi sàkku yéen ñëpp seen teewaay teel a ñëw ku nekk tamit lan la fa jox nga respecté ko bu baax ndax loolu mooy doxal liggéey bi ndax liggéey bi yëpp organisation la bu ci soxee rek liggéey bi day daal di sooxee yéen ñi nga xam tamit yéen a fay ñëw ngeen tegu ci li nga xam ne ñoom ngeen fay fekk ñuy sécurité bi ak ñeneen ak ñeneen li leen di wax ngeen jéem caa góorgóorlu ndax kat euh, gis ngeen lu baree bari ñu dal loo xam ne mooy dañuy dugg ci dañuy luwee fenn waaye fa ñu luwee duñ ci am dañuy génn ci biteeg yooyu ba day dem ba makkaan mun ko defee day xaar daal di xaw a jafe kon nag ñuy sàkku bépp jullit boo xam ne da nga ñëw te xas day moo lekk journée moo lekk boo ñëwee nga yam fan la yam loo toog duru ci xas ba sa ñibbi jot nga ñibbi di ñaan ku ko def yàlla nga dajee ngërëmul sëñ Tuuba di sàkku di ñaan ñu yàlla yegal ñu ci ak jàmm ñu yegg ci ak jàmm li tax ñu koy def muy ku tedd gi ñu daje ci ngërëmam ndax amuñu lu dul moom bu ngeen fàttalikoo bii passé Cordoba lañ ko defe woon te xas day dafa nekk loo xam ne sii amuñu lu du moom kon buñ ko wooteelee bis rek war nañ koo màggal bu baax sellal ko mhm. ndax jëf li ci ëpp solo lu mu rëy rëy mooy na sell mhm. dana am mujj ak mujj te képp koo xam ne bokk nga ci liggéey bi nga xaar ban boo ñëwee nga xaar ban yeewi la nga doog a dem ñu def ko ceeg bisimilahi rahmaani rahim jeexal ko ceeg alhamdulilahi rabil alamin daje ceeg ngërmu Cheikh Xadim mi nga xam ne moo tax moo tax ñuy def ñuy ñaan képp ku fa ñëw nag aaja boo am yàlla na yàlla ko yàlla faj tawat boo fa ëndaale yàlla ak saafara képp ku amoon yéen ñëw te amoon wér tamit yàlla suñu borom fëgg sa bopp ba nga ñëw ci barke xasida yi di ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy boo borom lépp ci barke Cheikh Khadim mi tax mu koy def mu wàcce jàmm ak xéewal ci dëkk bi képp ku nekk li nga soxla yaa xam suñu borom defaloo ko ci barke xasida yi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp ginaaw nuyoo gi it ak ziar gi buñ ci jiitalee ay ñaan jëmale ko sëñ Muntaxa ni ko sëñ Modou waxee léegi di ko ñaanal mu gën a yàgg gën a wér di ko ñaanal it njabootu sëriñ Touba gi yëpp xanaa rek daanaka wax ji moom dootul mën a sori ndax lu fi matoon a wax rek jëwriñ daana ko wax nañ ko xanaa di joxe sañuy kàddu rek jële ko ci ndigalu jëwriñu fédération muy sëñ Yankooba Gueye at mbooleem ñi nga xam ni it ñoo topp ci ginnaawam ñëpp ci bis bii nga xam ni moom lañu ñu muy bis bu am solo boo xam ni defe naa ni e, yëkkati ci ay kàddu di ko ci teg sax ci wàllu e, ay dayoom ni mu toll moom damaa jàpp ni sax ni mun nañu wax wax ju yàqu ndax kenn ku ci ne xam na e, xasida yi moom ñun murit fi mu toll ci ñun at jaral gi nga xam ni sëñ bi jaraloon na ko ba tax maanaam li ëpp ci dundam daanaka boo dee xool ci ay kiraamam dëgg dëgg dëgg dëgg ay mbindam la kon defe naa ni bu ñu demee ba jamono jii ñu toll ñun ñu ñëw fii ñu ñëw muy Argentine gi di di barab bu sori nag lool e, dem ba sëñ bi taw féex taw féexale ñu ñun ñëpp e, ñu jàpp ci di ko taxawal rek war nañ kaa delloo sant sëñ bi bu baax a baax a baax baax baax ba tax na ñu ngi ciy woo mbokku taalibe yëpp mbokku jullit yëpp di ci woo umma islamique bi ne ci dëkk bi sañu mbokk tiijaan yeeg ñaseen yéeg eh, ñi ñu bokkal eh, tarixa beeg ñëpp rek eh, ngir ñu ñëw jàpp ci liggéey boobu nga xam ni ni ko olof di waxe sax ne liggéey Sëñ Tuubaa lay nirool waaye kenn ku ci ne xam na ni sa bopp nga koy defal ak lu ñu ci mën a def ñu ngi ci woo nag képp koo xam ni rek sañu kàddu dégg nga ko ginnaaw bu ñaanee ñaanalee mu fekk la ci jàmm ñu ngi lay woo ci bis boobu bis bi nag 9 juillet lay tombel ñu koy wax Nobel de Julio fii kenn ku ci ne xam na ni bisu feria la ndax fii ci dëkk bi bis boobu bu jotee ñoom diñ ci amul benn yëngu-yëngu ndax daa bokk ci bis yi nga xam ni mën nañoo wax ni 4 avril la ci ñoom ba tax na eh, ñu ci woo mbokk taalib yëpp ndax kenn ku ci ne xam nañ ni yëngatu sax amul ci bis boobu ndax amul jaay amul lenn eh, barab bi ñu koy defee nag di barab boo xam xëy na eh, bokkul ak barab bañ ko defee woon daaw ndax keroog bi nga xam ne taxawal nañ fédération bi dañoo fas yéene léegi bisu xasida bi heure bu amee ñu fas yéene di def province bu ko ayee rek bu noppee at wa ca topp ñu jox ko beneen. xëy na jamono eh, bi weesu waa Cordoba ba ko ay ñoo ko aye woon te kenn ku ci ne xam ne ñu defoon nañ fa liggéey bu mag boo xam ne tuwaar fa kàlla te mooy ci wàllu njàngum xasida ma njàngum alxuraan ba bernde ya at liggéey ba nga xam ni yeewaat na waa dëkk ba fa ne woon ñëpp ci wàllu liggéey Sëñ Tuubaa loolu nag daa mel ni bu ren bi tey jii fii ci capital bi lañ ko ayee muy Buenos Aires eh, barab bi ñu koy defee nag ñu koy woowee Vicente López ci province Buenos Aires la bokk eh, cachet bi ñu koy defee nag muy Zucuriategui bente eh, benti uno vingt vingt et un defe naa ni am na ci ay barab yoo xam ni ku fa ne am na collectif yoo xam ñoo fay jógee di fa dem comme ñi nga xam ni ñoo féete fii ci wàllu Liniers 21 bi nga xam dañ cee bind Saavedra moo fay dem ak 117 bi ak 28 bi kon képp koo xam ni ñetti collectif yooyu muy 21 bi nga xam dañoo bind ci jëbi Saavedra ak 117 bi ak 28 bi moom dana la yóbbu ba ca buntu barab bañ koy defee barab bañ koy defee it kànca la boo xam ni waa Platensia ñoo ko moom defe naa ni sax ku ne ci dëkk bi sax ak remise boo mën a jël boo leen ne kànca Platensia laa jëm danañ la fa yóbbu. bu dee wàllu onse ñi nga xam ñooy bàyyeekoo ci onse bi car biñ naa bi bi cent cent quinze bi moo fay jógee di fa dem ak soixante onse bi nga xam ni dañoo bind ci kaw Maypo ak Congresso ñu xam ne yéen képp koo xam ci onse bi nga jógee te amoo remise bu la fay wala yoroo ndaamar maanaam boo fa bëggee ñëw car yi nga xam ñooy taxaw ci onse bi muy numéro cent quinze bi ak numéro cent onze bi nga xam ni dañoo bind ci kaw Maypo ñu bàyyi waale ci xel bu baax wala boog 111 bi nga xam ne dañoo bind ci kaw congression moo fay dem kon ñeneen ñi nga xam ñoo dëkkee wàllu moroon at at at moreno képp ku fay demit boo bëggee yoon bu gaaw mun ngaa ñëw ba Liguères nga dugg kaar yi nga xam ni moom lañ ci lim kon defe naa ni eh, jote fa moom lu yomb la eh, ñu bañ a nag taafantoo ci barab ba dafa war dafa xaw a runge wala boog barab ba dafa sori ndax defe naa ni jëmb ki tax ñuy dem ci bis xasida yii damay wax saa su ne ni li ñu am ba tax ñu koy ndamoo la mu daj moo tax ñu am ko te la mu daj ameewu ko biir dëkkam ndax bokkoon na ci nattu yi ñu tàqale ko ak njabootam sorel ko lépp loo xam ne rek bànneex la woon yóbbu ko ci barab yoo xam ne kenn ku ci ne xam na ni eh, li ñuy wooyee doomu aadama te mooy koo xam ne sa bopp ca kaw lay féete say tànk féete suuf barab boobu ñu ko yóbbu woon lañu amoon yéene ci moom mooy mu bañ faa dund lu yàgg ndax xam nañ ni caractère barab yooyu nit ku ñu naan li li sañu borom di bindee mu doon doomu aadama munta dund ci air yooyu te moonte foofu la toogoon doon fa bind xasida yooyu wax nañ ni eh, am na ci lenn ci xasida yoo xam sax dañuy wax ne maanaam sëñ bi bi mu koy bind ba daawi jeex daa mujjee xotti yàpp yaramam di càpp ci deret boppam ji di ko mottalee xasida yi loolu nag moom la daj moom sëñ Tuubaa ba sañu borom fayee ko la mu ko fayee ndakati yow loolu ko sañu borom fayee ngir ñun la woon ndax moom la la nga xam ne bu ko góor yàlla amaan boof laata muy génn mbàkk baari fekk ne am na ko bu yàgg kon nag daa fekkoon maanaam ñun ñu boof ci sàq bi di yaakaar sàq bi muri moom mu xam ni la newoon ca sàq ba bu sàq ba muri woon ñun ñëpp sañ yaakaar day tas moo taxoon mu dugg ci ñaay bi ba daj la mu daj moom sëñ Tuubaa ngir am li ñu am kon jàpp naa ne buñ nekkee fii nga xam ne boo doon xool gox gi yëpp fi mu nekk nii ñaar ak ñett ñoo ci dal yor oto waaye genn wàll gi yëpp ay ndaamar lañ yor gaare ko ñeneen yi it remise am nañ ko ba mu sooy kon kuy taafantoo loo xam ni tey jii ay bus ñoo la fay yóbbu yoo xam bu la neexee sax nga jël semi kama liñ naan genn wàll lal wala nga jël kama ñu naan ko ñu tudde ko lal nga xam da ngay tëdd ba yegg ca barab bañ koy defee ñu bernde la maanaam ci sa sago rek ngay defe lépp wóor na Cheikhul Khadim ba pare yaakaar ci pay boo xam ni dayoo ba sax xamoo nu mu toll te monte ki bind xasida yooyu ba déyal ba wax ñu lim ñu déyal ci xasida yooyu ba kenn ku ci nit di bañantoo ndaxte moom ci tartar yu tara tara tar la ko kon nag ñu bàyyi sañu xel bu baax a baax maanaam maanaam maanaam aspect yi ñuy jiiñ yi ñuy jiiñ jamono ba tax ñuy gàntal liggéeyul sëñ tubaab bi te mooy taw mu bareeg naaj bu bareek ngelaw lu bareeg seddaay ak dafa soreeg dafa nangam loolu yëpp sañ bi daan na ko daj fa mu ne woon ndax fa mu daan bindee taax mu ko doon tim amu ko te wallaay lazim taw nawet ak nawet ndax ku def juróom-ñaari at ci àll kon xam nañ ni juróom-ñaari nawet fekk na la fa te fore yu yooyu sax daanaka bu ni bu xiinee day taw bu xiinul day taw waxuñu na xeetu yoo ya fay ne daan matt yaram bi nga xam dañ ko daan jal ba nit bu ko daan séen sax du xam ndax lii nit ak nit la te teewul da daan bind xasida yi ngir sañu jëmm yi kon nag jàpp naa ni barab bu ñu koy defee wax dëgg yàlla kenn ku ci ne ci ñun waroon ngay sol dàllu weñ di ko daw di ko daw ak ki dox ba dàll ya xar ngir fekk bu jotaay boobu kon ñu ngi ci woo ñëpp lay amul bis bi du bisub jaay fañ koy defee jar na jaraay goo xam ne comme noonu ma ko waxee rek kon nag ñu ñu laxasaayu ñun ñëpp rek fexe bis bii wallaay lazim sañu dara bañ kaa fekkee du ci alal du ci waxtu du ci temps nañu buub sañu njaboot yëpp yóbbu fa buub xale yëpp yóbbu fa tax toqante leen ci xëdd sëñ Tuubaa yi te jéem ñun ñëpp ngir rek fexe ba lépp luñ fa mën a def rek wallaay lazim ñu jox ko sëñ bi ya mu joxal ñu ko yonent bi yonent bi jotee ñu ko te bañ te ñu ñu bañ ci sàqu dara te xam ni loolu waru sëñ diggante ak sëñ bi kon foofu la ñuy yemale kàddu yi rek di baalu ñëpp ak lu ci jub rek ñu jiñ ko sëñ bi lu ci dëngit ñu xam ni seen mbokkum taale boo xam xam-xam ko te mu bari wax la rek asalaamaaleykum wa rahmatullah